Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal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 démb ca tribunal ba ci amul moyen daal di nga xam ne maanaam mooy ay document ma ca falsification yooyu nag si la dem ba daal xam ne kii ay njuuj njaaj la dugal ci li nga xam ne mooy ay papier ma délégation générale au renseignement national daal koy dàq journal bi nee na porté ko plainte la ñu mujjee def escroquerie faux usage de faux la ñu koy toppee tribunalum niki démb la ñu ko àttee tëj nañ ci juróom benn wéeri kaso xam ne ci cadre Pastef la bokk moom nag daat nay wax ne Ousmane Sonko sorte bi nga xam ne def na ko ci Aliou Sall ak Lat Diop jamono ji mooy yëngal régime bi te nag ñoom li leen jaaxal mooy Ousmane Sonko moom cunduma maanaam bu waxee ñëppay wër di ko tontu te nag li si garaaw mooy régime bi maanaam bu Ousmane Sonko waxee day jeex-jeexi journal bi di bés bi ñu koy fekk fa Mambay Niang moom nag yàq na musiba ak mbelengaana ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr nee na Abdoulaye Diouf Sarr amul bilan fi nga xam ne mooy ca diiwaanu Yoff Yoff boo xam ne jiite nga ko lu toll si juróom-ñaari at amoo yow ana nan lañ leen mën a dénkee li nga xam ne mooy ville bu Ndakaaru Barthélémy Dias nekk na fi maire Soham Wardini nekk na fi maire Pape Diop nekk na fi maire ak Abdoulaye Diouf Sarr Doudou Wade mi nekkoon na fi conseil municipal li nga xam ne ñoom ñoo ngi koy diggee ana lan moo tax maanaam defuñu ko woon lan moo taxoon ñu doon xaara yéen kaay gii di Vox Populi Barthélémy Dias tontu ñi nga xam ne ñooy wax ne amul bilan Barthélémy Dias nee na élection yi ci benn bokk yaakaar daan nay wax ne Dakar mokk na rumbax yéen a kaay gi de la sa ñu koy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr ma ngi démb ca diwaanu Cambérène na di reetaan am confiance nee na mbir mi yéen a kaay réew mi ko di jeexee nag ni ki démb la nag rentrée des cours de tribunal njiitu mi di président Macky Sall moo ko présidé la ñu fa doon waxtaanee lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci lu jëm ci wàllum suufa journal bi nee na ñeenti at lu toll si ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom maanaam ci ay dossiers yoo xam ne ko jamono lu jëm ci wàllum foncier daal nay bëri yéen kaay gi di wal fajre nee na ñi nga xam ne nag ñooy magistrat yi jafe-jafe yi am ci wàllum suufa eli lu yi la ñu tuuma la yéen kaay gi di l'observateur suuf si Macky Sall nee na ci amal ay réforme yéen kaay gi di las nee na waa CUSEMS ak waa SAEMS tey jii dinañu amal ab grève yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na arme nga xam ne jàpp nañu ko ci biir ndox mi ndax Sénégal nekkul ci ci benn suuxu la yéen a kaay gi di Dakar Times xëy di ko dëggal la nee na Abdourahmane Dieye mi nga xam ne moo jiita duwaan am na nag lu bari loo xam ne war na koo mën a leeral te leeralu ko maanaam ki jiita duwaan waxul lépp ci mbir mi yéen a kaay gi di Vox Populi nee na nag sunu gaynde yi ni ki démb dañoo témbo ak Malawi waaye nag amul benn inspiration boo xam ne am na ci footballu gaynde yi amul efficacité Sadio Mané nee na nag jamono ji xam nañu situation yi ñu nekk Bouna Sarr nee na xarañte fa moo des maanaam ci lu jëm ci wàllum dugal yéen a kaay gi di L'As nee nag sunu gaynde yi dem nañ ci huitième finale yi waaye yéyu ñu kenn convaincre ñu kenn maanaam football boo xamante ni kenn mënu koo comprendre ñetti match yoo xam ne Sénégal benn bii la ci dugal te ab la yéen a gi di Walf Fadjri nee na Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly ñoom ni ki démb dafa mel ni dañoo réer ci terrain bi yéen a gi di L'Observateur moom nee na dafa mel ni dafa démissionné ci li nga xam ne mooy équipe bi démb kat Sadio Mané maanaam deful dara puusul paasul yéen a kaay gi di enquête nee na nag football bii nga xam ne sunu gaynde yi ñoo ngi koy football football bi demul a kaay gi du Source A